ñàkki caaxaan ndaxte daa xëy loon te gaaye xëy nag mu dab leen romb leen njëkk leen lu kenn nit mës la def Cheikh Abdou Lahad a ko def du nit ku ñuul du ko weex du walli yoo ki lu kenn nit mës def Cheikh Abdou Lahad ko def du nit ku ñuul du ko weex du walli yoo ki loolaa di lan moo di nit ñi ñëpp bàyyi lu bon te xam ne moo ko fi def bàyyi laat bëggul waxi neen doo dox lu mat ci réew yépp a ci yam te gisuloo nit ko tox ab malboro wala poon mbaa sax mu màndi ci ñollam mbaa mu naan fi sëng mbaa sax mu la fay pion kay dox dira fële boon Cheikh Abdou Lahat Cheikh Abdou Lahat bale Tuubaa dàq lépp lu bon sellal dëkkam bii ko baayam dénk génn fi xiin Cheikh Abdou Lahad bale Touba dàq lépp lu bon sellal dëkkam bii ko baayam dénk génn fi xiin ak itama ki sabar lu baaxee sa mbir yow lépp loo xam ne taaruwul te yow du sa mbir ne ko ci bañante bi te ne fa nuy xiiroo ko soowoo ko def lu bon danga dem fa yàlla yi jaamu génn nga gott bi sëriñ bi kenn la maasam musulaam todam moo jiitu sang ya dee faa dégg ak yu nu gis mboolem sëriñ bu ko def maasin na sàkku ko mel ni Ibra Faal ki seex ak Ibra Faati nu gis sëriñ si yéen ngi nii te ngeen a xëy daje bis te dikk def nii nu def jébal ko seeni kurus da yokku diine di ful warsak di guddalo di fekk lor ak kër kër ku wet dina mos kàddu yi di jóg El Hadji Idrissa président INACOI jàppoo moo bëgg a yëkkati ay kàddoom ngir muy ay kàddu sant ak ngërëm nee na tey ci suba nee na lii ñuy def ni defoon nañ ko tey ci bëccëg xanaa day mel ni répété rekk waaye daa mel ni it ne jataayu suba bi am nañ ñoo xamee ne fekkee wuñ ko woon tey ñi ngi ci jataayu ngoon yi ñoom itam ñu war a yëg war a jot seen ak cant ak seen ngërëm kon nag nuyoo gii mu yëkkati da ko da jiital kilifa yi jataay yi toog si fii ci biir jataay bi te nag buñ waxee loolu mooy xam nañ ne wàcce woon nañ fii tey def nañ fi jataay wàcce fi alxuraan nee na comme ni mu ko defee woon rek ñuuñu taxawee woon alquran juuju te ku nag xam na ne bis bii tey bisub alquran la kon ñooñal la jiital si nuyoo ji fuñ toll muy sëriñ imam Daabo ak ñi mu àndaloon ñëpp si taxawaay boobu ci alquran bi waaye nag buñ joxe jiitalee imam Daabo boobu képp koo xamee ne imaam a nga it nee na ñi ngi lay teg si gannaaw imaam moomu di la jottale nuyoo gi ndax ci bëccëg imaam Thiam mi fi woon ak yeneen i imaam sunu imaam alhaaji euh, Abdoulaye Mbaye mi ngi nii toog mi fi moom itam comme ni mu ko waxee woon ci bëccëg moo fi nijaayam tey bokk ak moom jataay bi ànd ak moom comme ni mu waxee woon ne imaam Thiam moo fi papaam bokkaloon ak moom ànd moom ci jataay bi kon nuyoo gi ñoom mi ngi leen koy jottali nekk kilifaam mooy sunu nijaay sama papa Abdoulaye Mbaye mii nee di ci teg imam Cheikh Tidiane Mbeng mooy borom kër Biche Fall mi ngi nii toog mi ngi nii toog ak soxnaam di ci teg kii nga xamee ne tey muy maam Abdoulaye Ndiaye yàlla jaarale si moom kéemaan goo xamee ne wax naa ko ko yëgaguñ ne kéemaan la mais nu àdduna avancé ba si kanam dañ xam ne kéemaan la si kéemaanu yàlla yi ndax buñ ne kéemaan la mooy Abdoulaye Ndiaye mi rek liggéey na ba ba retraité si loo xamee ne léppi àdduna la woon ak tubaab luñ si si liñ ràññee ndax moom si banque la doon liggéeyee waaye ba mu demee ba retraité moom imaam Abdoulaye Ndiaye mii kéemaan bi may wax nii moo moo feeñ te loolu si loxo yàlla la ndax si fukki weer ak ñaar muy lu toll benn ak dong la laxasaayu ginnaaw ba mu retraité laxasaayu defal boppam am lu mu tuddee boppam mooy dafay gàddaay yi moom gàddaay la ko tuddee woon génn bàyyi këram bàyyi njabootam ne dafay dem jàngi ji alxuraan waaye la sa mooy beru di bind kaamil di xool man mii di wax boo gisee ma àddu si mooy maa toog muy bind may teg di gis muy bind yàq boo xamee ne dama ne ko woon yow alxuraan bu njëkk ba ba muy door di wàcc amul tomb amul maska amul sadda naxu bi génnagul moom lay doon démarrer bu bindee juróomi feuille juróom benn feuille fukki page bu pare door di dellusiwaat tombaat ko maasaat ko ba bu paree boo xoolee kaamil bi mu doon xool ak lim bind ak loxoom da ngay yaakaar ne photocopie la président Idi nee na mi ngi gërëm ñëpp bàyyiwul kenn waaye mi ngi gërëm tamit xarit yi sonn ki ne Mbàkke nee na xaritam yi nan Jobe neena mi ngi nii toog den moom xaritam la nee na it xarit bu yàgg la nag ndax yàgg nañ ñoom ñaar torop sax nee na soxna gi ne nee na romb nañ xarit ñoo bokk ndey nee na it soxna ki ne mbay ja bintu ceen ndey jaw ak doomi ndaya bii toog nday ndey njaay assurance ak doomi ndeyam bii toog doomi baayam bii toog soxna Astou Mbacké nee na ñii mu tudd kenn ku fi toog nangul ñu yóbbalaale la sa tur bu la tudd it nga xam ne yaa ngi ci biir ndax mu munut tudd ñëpp ndax ndax jataay bi nee na daal bàyyiwul kenn comme ni mu ko defee woon ci bëccëg programme bii niñ ko tëralee mooy nee na waxoon nañ ko tey ci bëccëg programme bi mooy continuer mooy bis bi bisub sunu baay la sunu maam la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom lañ fiy wax luñ ci wax ak ak waajuróom wa tedd ba maam Xaadimu Rasuul ñu tënku ci bis boobu tënku si ay waxam tënku si jaar-jaaram xool ay doxalinam bu jiitu ngir mu nekk royukaay ku fi jóge am loo yóbbuwaale mën koo boolewaale ci yow ngir muy doon sa njariñ fii doon sa njariñ fële booñ ko defee nuunu te bañ see dugal leneen nag lu ci bokkul bu ko defee lépp bu desee waat delluwaat ci borom bis bi muy sunu sëñ Abdoul Ahad ñu wax ay jaar-jaaram du ñàkk si ñun koo xamee ne man nga saa jël sa loola lennet boole waat ko ci yow muy sa ab avancement ak sa yokkute nee daal dégg si góor ga alxaaji aas muy wax naan mbir boo sa bokkee waaye nag nga ban saa nga bañ saa yàq bañ saa yàqule bu boobaa loo sa am rek da nga koy doy mu doy la ab Abdoulaye Diop Bichri moom mooy kii war a waxtaanee si sëñ bi mooy conférencier bi kon nag lu waay di wax waxal gaaw balaa euh, conférencier bi di jël micro ndax bis bu jëlee micro bi dañuy ñaan rek bàyyi ko moom mu continuer te bu waxee ba pare it ah dañuy ñaan rek daal di ndax euh, mën a tàqali ko ndax dooñ man toog toogaat toogaat benn jataay lañ ko war a def ñu wax lañuy wax mbooloo mi man koo jariñoo ndax danañ ko mën a taataan segg ko kenn ku nekk yóbbu sa la mu mën a dégg nee na kon nag jërë jëf yéen ñëpp ne sant na leen gërëm na leen kontaan na gis na seen taxawaay gis na seen yëg ndax nit comme ni mu ko waxee woon amul lu dul bisam kon boo ñëwee bokkale koog bis bi àndale koog bis bi dundanteeg moom ak bis bi yëg na sa taxawaay te taxawaay nit nit fi mu la toll du looy wax waaye looy jëf la kon seen ñëw ay jëf la buy wane taxawaay bi naa tolluwaay bi nga xamee ne kii di Soxna Kiné kii di Idrissa Thiam toll nañ ko si yéen kon lu ñu yëkkati si kàddu cant xam leen ne ab ab ab junj rek waaye la ñu denc ci seen biir xol moo ko gën a rëy. Cheikh Ahmadou Bamba ku ne am naa ci moom yaakaar waaye sa bàyyi tasul yaakaar yi sëñ Touba day faral ñuy wax naan autoroute beeg ay nu rahmati Cheikh Abdoulaye lim defal sëñ tubaa te nit ñi xamu ko moo gën a doy kéemaan xanaa xamoo ne Makumba bor bu Serigne Touba lebaloon Seyduna Muhammad Cheikh Abdoulaye sa bàyyi ko fay Alaaji Asan Serigne Touba ku am Rasul lay la tuddee. sa baay Cheikh Abdoulaye ku mu am sëñ Bamba la ko tuddee jigéen ñi maam jaara valeur ak personnalité bu ko murid yi amee sa baay Cheikh Abdoulaye la moo tax ñu am personnalité moo tax ñu amu fit moo tax ñu xam sunu bopp baat yi gën a doy waar nag Cheikh Abdoulaye moo ëpp xam-xam ci réew mi def arxuraan nu ko kenn defut kilifa ma ne ba mu fi bàyyi koo ba tey ñaar fukki at la ak nangam waaye liggéey bi mu liggéeyal sëñ Touba. liggéeyal ko réew mi àggagoo ca ma ne tax mu ne wax alxuraan a ko téye di ko teral ba tey alxuraan tàmmee bàyyeegul Cheikh Abdou Lahad ba tey jii xanaa xamoo yéene néeg la borom ma koy fanaan sa bàyyi nu ko fàttali eh wax ne yéene néeg la borom ciy fanaan sa lañ ko gëme alxuraan màkk la njëkk a wàcc Medina la bu ja wàcc waaye Touba am kër grâce à Cheikh Abdou Lahad Mbacké sa Màkka la njëkk a wàcc ci Seydina Muhammad Medina la mujj a wàcc ci rasulullahi waaye Touba la am kër nag grâce sa baay am personnalité bëgg boppam gëm sëñ Bamba xanaa xamoo ne bu la laajee ku gën a gëm sëñ Bamba ñeel Cheikh Abdoulaye xanaa xamoo lu tax mu def kër mag moom personnalité ak fonk boppam dañ maa wax démb ne ma soxna ki ne màggal gi muy def fii sëriñ Sidi Mbàkkeem Cheikh moo ko ci jox ndigal ma ne ko gaynde bu ragalee it xongali bët kun gaynde sa baay boo ragalee xongali bët kun ne Cheikh Abdou Lahad sa baay loo def lu dul ndigal jaaxal say bokk Cheikh nekk na fi ak sëñ Fallu mës sa def mës sa dindi daa mel ni ku xamul dara te ñi raw moo leen raw waaye toog ci kanamu sëñ Fallu rek mel ni xamul dara bu ko sëñ Fallu wooyee day daw ak tànki neen bu dee sa baay te nag soxna Awa nee na ma lu nu war a jox Serigne Sidi Mbacke ànd nga kook ñi nga am jox ko sëñ Sidi doog a toog fii bernde ak say bokk waaye ñii toog fii ñu wàcc alxuraan ñu toog fii ñëpp mënuñoo dem Touba Mbacke boo màggalul woon bu géey waay te kat damaa wax ne sëñ Sidi Muxtaar sa baay katabalaahu tabaraka wa taala anna baytillahi aram tar folu malaykatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sëñ Sidi Muxtaar sa waay sa sa waay sa mag moo nu ko leeral Màkka yéen ñi ko miin xam ngeen ne juróom-ñaari soroor la jël na juróom-ñaari soroor yóbbu Touba juróom yi moo jël nu ko Masalikul Jinaan toxal Touba Ndakaaru def Màkka Touba kon tey nag Touba la ñuy màggale màggalu Cheikh Abdoul Ahad Touba Màkka ña fa dem mooy murit yi dem Touba ña nga Màkka waaye nun ñu ngi Touba nun di màggal Cheikh ab Ahad xubaydu rabbi yób ne seex yi autorité bi Cheikh Abdoul Ahad ay ni rahmati Cheikh Abdoul Ahad daa day kaamil Cheikh mu bari personnalité xam boppam xam li mu doon raw ku raw ku fi raw may wàccee sama kàddu yaa raw ku raw ku fi raw Cheikh Abdou Lahad borom Touba yaa raw ku raw ku fi raw ay balay sa yaa takkoo ka raw ñamu raw moom laa fi gis ku fi raw mu raw ko yàllaawu na ñëpp def nii ñu màggal bàyyi soxna ki ne abdoulaat sa baay boobee seex abdoulaat moo man ku man ku fi man moo tax kooka man ñamu man seex abdoulaat moom laa fi gis ku fi man mu man ko yàllaaw seex abdoulaat yaa gën ku gën ku fi gën seex abdoulaay laat yaa taxu kooka gën ñamu gën na ñëpp def ni ñu màggal bàyyi sëriñ si deeg seexu naa ñuy ñaan nag ku nekk ci jotaay bi góor jigéen mag ndaw kenn ku nekk ci ñun mu jàng fatiha ñetti qul huwa allahu benn salaatal fatihi ñi ci ñi ci sama gannaaw duñ ma may tuuti rek ñetti minute rek lay doon du ko mat may leen ñu tuuti rek lillahi wa rasuli ndax bés bii doonul bés bu tuuti ci ñun ku fi ñëw ku ne dégg naa fi benn kàddu ku fi ñëw ku ne da nga war a defar defaru te loolu moo ñu fi indi jariñ kiñ ko ñaanal mu tëdd ci bàmmeelam bi ci des dana itam waral ñu fay doxal teraanga ki ñaan-ñaan gi su ko defee loolu fii ci àdduna ak ëllëg kon loolu mooy sababu ñu ubbee loolu fa tabarakallahu yal na ko yàlla jotal ci ñaan gi e, tabarakallahu e, isa mata bnu aadama inqataa amaluhu illa min salasin doomu aadama yonent bi sallallahu alayhi wa ne su xas su xasee faatu su ruugi rod rek programme yëpp day coupé ba mu des ñetti yëf sadaqa jaariya sëriñ Abdoulaat def na ko yu ilmun yuntafau bihi sëriñ Abdoulaat def na ko wala dun saalih yad'u lahu mooy soxna kinne mii ak i bokkam sëriñ Abdoulaat bàyyi leen fi gis nga li fi daje ci mbooloo ñëpp kenn ku ne jàng ñetti lixlaas yu ànd ak basmala teg ci salaatu ala nabi ñu boole yëpp jox sëriñ Abdul Ahad te sabab bi mooy doomam ji toog ak ku tedd kii di sunu doom yàlla boole ko ak moom muy Haji Idris nga xam ne léppam mooy soxna si soxna si it léppam mooy xaaji Idriss su ko defee kon nun loolu dafa rëy ci ñun moo tax bés bi bu dikkee ci suba ba léegi ñi ngi fi fa tabarakallahu ànd ko ak moom di ñaan di jox Serigne Abdou Lahad eh, Serigne Abdou Lahad nag fi ñuy wàccee sunu kàddu ku dëggu la woon Serigne Abdou Lahad ku bari woon xam-xam la Serigne Abdou ku amoon fit la sëriñ Abdou dafa nekkoon fayda kese maanaam fit wi dëgër na fulla ji am na solo tey tamit doxal na ko ñun nekkoon nañu gasaan ànd ak nekkoon fa ak Cheikh Ibra bu Cheikh Mamad Fadal waaw ak ak ak ak Serigne bu Serigne Modou Xaban ak Serigne Fallou Mba Serigne Fallou Fall mooy léegi xalifa sëñ moo Modou Amin Tafal ñoom bokkoon nekk foofu sëriñ Abdou ak Chifa wàcce benn kayit ñu ñu ngi bëgg a julli timis dal di oto bi wàcc ñun ñëpp ñu daw wër ko sëriñ sëriñ Maxtaar Mariama si ñu lal euh, sajjaada yi mu ñëw ba di ko jub àgg suuf ferang daldi dal benn génn benn kayit ci poosam dal fii mooy gasaan ñu ne waaw mu liir na waaw tur waa ngi nii sëriñ Falloo may yónni dëkk yi ma waxoon nag bii ci la nenoo naa war dëkk yi ban jeex ma dem wax ko li ma def ak fi ma dem ñëw naa nag gasaan li tax ma ñëw fii nag ñun ñëpp ñu ngi toog man kenn doxoon sama digganteek moom keroog ñun ñépp ñi toog mu ne li tax ma ñëw fii nag xam ngeen lan la ñu ne ko lan la mu ne dama bañ ëllëg bu ma fi ñëwaatee ñu ne ma yaay kan Abdoul laa tudd Cheikh Al ma ma jur sama kilifa mooy Cheikh Mamad Fadal moo ma yebal dal di tàllal ñaan oto bi dal di départ mu walbatiku nga yëg ni kon te loolu ca déwén sa la Serigne dem mu toog ci jataay bi toog fi toogeen wu sell wu rafet wu yiw wu tedd islaam jamu ko benn yoon ñëpp xam ko kon nag ñu dal di taxawal julli gi ñu dal di taxawal julli gi incha allahu taala yemale foofu kàddu gi di ñaan nag ñu bërile ko lool yàlla nangul ñu ko zahiran nangul ñu ko baatinan inu walun li dalika wal qaadiru alayhi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dafay lu wér tey lu yàgg lool ndax xam nga ni ci nekku sëñ Abdou naa wam ay ati ati at def nañ ko ci kër Serigne Touba sëñ Abdou Lahad googu muy ko am wóllëre lool de ko am ak jàpp lool bokk ci li sëriñ bi wax ni maa sama bopp samay sët te nag sëtub sëriñ tuubaa yii ndax la sëriñ Moussa Ka waxoon rek doomi sëriñ Touba ju góor ak ju jigéen sëtub sëriñ Touba bu góor ak bu jigéen yayoo nanoo siyaare ak màggal leen koo ca siyaare jox ko kay idaaya Seex Bamba Fay la mooy borom wilaaya kon soxna si wóllëreem ak ak jàppam Cheikh Abdoul Ahad daa am lu mu firndeel ci diggam ak Serigne Touba xam nga sëriñ bi daa am lu ma waxoon ak boroomam loo xam ni daanaka bu fekkoonte ni kenn duggul ci lislaam bii ni day liggéeyal yàlla nee na man fàggu naa loo xam ni liggéeyal yàlla liggéeyal rasulullahi faggu naa ko faggin woo xam ni nee na lépp day mat ndax ba ma ne wali yahab kaw nii ka kulli mursali te nag wajal uroo fii ka fi alirtuli loolu kenn musu koo bind kenn musu koo wax ko dul xaadim rasul seyxul xadim ni yàlla sama jëmm ji dama bëgg nga def ko mu taxaw taxawaayu mbooleem lan bi yaa u yi yonent yi yëpp wax sama taxawaay na nekk seen taxawaay ñoom mbooleem yonent yi laa wax te bu loolu amee ba noppi seen jëf yan doon jëf ñoom lan bi yaa u yooyu na nekk nee na sama araf yi di xasaa yi di <laughs> nee na xasida yi moo taxaw taxawaayu jëfi yonent yi mu ne nag yàlla abli rasulillahi fi awlaadi jublata maa yaxtaaru fi tamaadi kooku mooy kilifa kooku mooy aji musle ja kooku mooy aji sellal ja moo rëy askanu ndey noonu la askanu bàyyi kii laa wax ni moo yéeme moo doon feeñal taar bi kii laa ni mooy aji sell ja bu leen ko jéem natt ci gaa yu baax ya kii moo di kilifa ga laa wax ni te wàllu yooyu yëpp nag kii mooy jantub jant yi kii mooy kilifa kilifa yi kii mooy ngeen ji wéttal ñeel mbooleem awliyaa yi man day saafaraal na ma samay dën yasaalu ala arsidina wa bas li naa maa yanfauna dunyan wa uxran musul dañ mukk dinu jox loo xam ne moo ni jëriñ adduna moo ni jëriñ àllaaxira kon fa tabarakallahu nii nu ko waxe woon ci njëlbeen rek noonee lañ koy delloosee di ko fedd li ci wala réew soxna si ci ak jàppam ci sunu digganteeg moom te lii may wax bari na ñu ko mën a wax ñoo xam ni ci seen digganteeg moom yàgg na lool ca lépp di rafet loolu nag Serigne Touba la. ba soxna Ndine mii dafa ne ma Assane ma ne ko amoon ah, ma am na loo waxoon sax waaye damaa bëgg nga jaaraat ci ndax pour ma doon mi ngi nii toog ma ne ko yaay lan mu ne ma damaa bëgg nga tal ma te gërëm ngay def wax ak bii soxna si noonu la ma ñoom ñaar sax xam naa ne xawul sax xarit ñoom ñoo xawul loolu. ay affaire bakkan nag tudd ko waaye nit ki nga xaritoo moom ba nuróo ko kii bañkat la barke Cheikhul Khadim la joomu wërsëg yi rek la daloon xam ne day taal bi Cheikh Sadio Mbaye muy Pape Mbaye Yves ñëw toog fii mooy bi nga ñëwee mu ñëw fekk la fi yow tegal la nga toog mu doogay delluwaat fii nee na loolu naa ko wax beneen bi muy waa kër Yaasin Dukkure yii yéen ñii soxna si nee na gis na seen teewaay nee na gis na teewaayu Cheikh Yaasin ndax xam na ni mu mel ci moom soxna si ne lu ko waay di lebal baye boo mu doon mbaax nee na ma sant leen gërëm leen nee na beneen bi ci des mooy naa ko gërëmal soxna Fatou Bintou Pouy soxna Fatou Bintou soxna si nee na boo demee ci sëñ Abdou Karim borom ma makaarimal axlaax nee na nga santal ko ko nga gërëmal ko ko nee na ndax lu xew ci moom lu ne nee na kenn ko jiitu ci moom bi ci des nag dañuy jël kàddu gi ndax xam ngeen le directeur général de la Sénélec ki nga xam ne bi mu ñëwee Sénélec fekk na fi courant ci kër gi waaye dafa am néeg yu tàkkuloon